نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي salaamaaleykum internet sans limite TV dalaat leen ak jàmm seen émission Serigne tey nag ñu daal di dalalaat Cheikh Abdoulaye borom course gi moom lañ fas yéene waxtaanal tey nag ay ponk yu yaatoo yaatu balaa ñuy dugg ci biir ponk yi rek dañ koy bàyyi muy yoog internet sans limite TV yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax ci sans limite TV. aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim qaala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi nuyu àddina bi yëpp murit tiijaan xaadir laayeen ba ñu ci jàngu bi ñu ngi nuyu ñëpp zaahiran wa baatinan di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillah léegi dañuy daal di jublu ci laaj bi rek bu njëkk bi muy li nga xamante ni moom moo di ñaan lu yàlla maanaam benn bokk na ci ponk yi muy li nga xamante ni moom moo di kaaraange ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci tuuti rek alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla fii lañ ko fekk te du fi jugee daay man yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaan yàlla ba lépp lu bëggoon ci diine lislaam mu taxaw yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam def na loolu yonent yàlla noox yonent bu fi jaar mu ngi tënku ci ñaan yàlla ndax yonent bi daf ne duwaawu muminuun yàlla ne adooni stajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon nag ci buntu kaaraange yàlla may nañu ci lu bëri kaaraange mooy loo xam ne doom aadama bu ko ñàkk dundam matul kaaraange da ngay xool misaal bi ci njiitu réew mi rek benn doom aadama la waaye boo xoolee ci protocole am doom aadama yi koy topp fépp fu mu bëgg a jëm am na lu ko fay jiitu di ko aar noonu la kaaraange amee ci jëmm doom aadama lan moo la koy may mooy nga am gàllaaj nit ki su amul gàllaaj lépp lum dugg yëngatu ci du sotti doomu dafa war a am kaaraange soo amul kaaraange maa ngi faral di wax ne bëri na bëy wala gàtt boo gis mu dugg ci cin fekk bët ak làmmeñ ñoom ñoo ko fa dugal kon nag doomu aadama bi na góor góorgóorlu ba am kaaraange ñàkk kaaraange daal mu ngi mel ni nga ubbi sa buntu def fa valeur bu rëy képp ku dugg jël li nga bëgg a jël dem sa yoon yoonu kaaraange yàlla may nañu ci yoon woo xam ne dañ koy liggéey ci garab goo xam ne doomu aadama dafa daanu te dee wala teen bu të buñ gas bam sonn mu të wala dañ koy liggéey ci pakk boo xam ne dafa sax ci digg yoon bunt yuñ ciy jaar bëri na ci wàllu kaaraange aar doom aadama bi ba ilaa yombal xiyaamati dara du mun ci moom dañuy liggéey ci yoonu kaaraange ci wàllu nombo am na nombo goo xam ne dañ koy liggéey waaye nag ñu ngi koy liggéey ci suuf dañ koy jël mboolu gàllaaj la boo xam ne ci wàllu pas la nombo goo xam ne la népp lu suuf tëyee noonu ngay tëyee ndax suuf si tëna ci àdduna ñu bàyyi ko ak yàlla liggéey ci bunt boo xam ne buñ fi jaaree nit ki dina am kaaraange wàllu kaaraange daal képp ku ñu aar su la nit joxoñee sax te jublu ci joxoñ rek baaraam boobu noonu dina damm bu soobee yàlla. ba tey rek ci laaj bi lañuy ñuy daal di dese yow bi ci topp muy li nga xamante ni moom moo ci wàllum ubbeeku ndax ubbeeku ñëpp ñoo ko soxla. alal ubbeeku fatxu ñëpp ci am soxla ndax doomu aadama bi pour jaamu yàlla mat il foog mu am alal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa amoon ay richard yoo xam ne dañu nekkoon ci ginnaawam ku ci mel ni Seydina Ousmane Ibn Arfan ku ci mel ni Seydatuna Khadijatu ñu bëree bëri ñoo nekkoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi di financer ay mbiram te loolu lan la leen ko may bés Seydina Muhammad naafila na ba bët set ñu laaj ko mu ne toogaay bi ma toog yépp Seydina Ousmane lay ñaanal ndax lan teraanga goo xam ne Seydina Ousmane daf ku ko defaloon kon nag ci jamono képp ku bëgg dara da ngay jëmbat dara soo bëggee alal da ngay jëmbat alal kon nag wàllu ubbeeku mook doomu aadama bi ñoo ànd ñu ci liggéey loo xam ne nii ñu ngi koy def ci garab bu euh, euh, garabu kii lañ koy liggéey ngi gis bu ñëwee ba ci garabu ngi gis garab gu njëkk gi dañ fay gas benn reen ñaareel bi ñu gas fa ñaar ñetteel bi ñett ñeenteel bi ñeent juróomeel bi juróom juróom benneel bi juróom benn juróom ñaareel bi juróom ñaar suñu dajalee reen yooyu yëpp mu jox ñu ñaar fukk ak juróom ñett tolloo ak arafu abajada yi mu nekk sunguf boo xam ne képp ku ko sangoo di nga taxaw ci donkaas yi ba yombal xiyaamati ñëpp danañ la dégg am na yoon wu ñuy liggéey ci war a yëkkati ku yëkkatiku makkaanan ci bërëb xaliyan bu kawe ñu ngi ciy liggéey loo xam ne sëñ bas boo ko buñ la ko liggéeyalee nga taxaw ci xeer wala nga taxaw fu kawe sangoo ko ba pencam yàlla da ngay raw sa bépp maas lépp loo yootu da nga ciy jot wàllu ubbeeku yàlla daf ñu ci may bunt yoo xam ne suñ ci jaaree doomu aadama bi wërsëgam dina tijjeeku daay man am nañ ci yoon woo xam ne nag yoon wu gaaw a gaaw a gaaw la ndax doomu aadama bi yàlla daf ne wa maa xalaqtu jinni wal insa ila li yaxbuduni am na lenn ci ay mbindeefam yoo xam ne doyewuñ alali àddina dara waaye nag ku leen ñaan taxaw ci seen buntu jox leen sarax yi ñu soxla lépp loo yootu ci àdduna di nga ko jot ci fan yu néew képp ku bëgg dégg turam ci fan yu néew man maana wax ne suñu jëflante incha allahu rabbi dana ubbeeku ba pencam yàlla tànkam dootul laal suuf. kon maanaam ci ubbeeku boobu su la déggee moom mooy day ànd ak li nga xamante ni moom moo di wërsëg bu gaaw. nga koy faral di jëflante ak ñu bari. loolu beneen yoon la wàllu wërsëg bu gaaw comme li ma la wax léegi rek am na ci yoon woo xam ne yoonu rawxaaniya la doomu aadama yi ñun nag yàlla def na dañu góor góorlu nekk ci turu yàlla ndax xaraf boo gis am na rawxaan boo xam ne moo ko mooñ kon nag demeet ba tur yàlla yi jeex am lenn ci turam yuñ jàpp di ko liggéey di ko liggéey ba yàlla nangul ñu keroog ba mu ñu nangulee ba léegi képp ku jëflanteel ci wàllu ubbeeku di nga yëkkatiku te sa sànq dootul laal suuf moo xam loo mënanti di yootu suñu dimbalantee ci wàllu ubbeeku fan yu néew sa tur danañ ko dégg ci alal bu soobee borom bi tabaraka wa taala te ci bunt yu leer lay doon bunt yu sell lay doon macha allah am na solo ñu daati jàll ak yow ci li nga xamante ni moom moo di wàllum fay coow mbiram fay coow dama ne képp ku président de la république fëggal sama buntu man Cheikh Abdoulaye borom kurus gi coow loolu kenn doo ko dootu ko tudd ba pencam yàlla bés bu nekk damay joxe misaal ci jamono audit yi audit yi kan ngeen déggati ñu wax tudd audit ndax am na doomi aadama yoo xam ne jox nañ leen xeer boo xam ne dafa ànd ak benn aya aya boobu noonu képp ku ko wan ba pencam yàlla sa tànk du dugg kaso yoonu kaso am nañ ci téere bu ñuy def bu ñuy wax acam jaru ko ñu ngi koy liggéey ci deru mbaam sëf mbaam sëf kenn musul dégg coowam ay nit a ngi lan la ñuy ñu ne mbaam lañ sàcc wala nangam déedéet am nañ ci yoon woo xam ne xattaa nga rey nit waxuñ na kenn rey waaye wàllu fay coow yàlla daf ñu ci may loo xam ne nii képp ku ñëw ci ñun ak coow li lum rey ñun dañuy taxaw ci jëmm yërmande yàlla ji aar la sàmm la ba nga xam ne coow loolu kenn dootu ko dégg ba ci coowu Cheikh Yirim Seck bi bu ñëwoon teg tànkam fii billahi wallahi wal kitaabi kenn dootu ko wax macha allah internet sans limite TV ñu fàttali leen ñoo ngi seq waxtaan bi ak Cheikh Abdoulaye borom kurus gi euh, di fàttali rek képp koo xamante ni li mu wax fii nii soxal na la ay numéro téléphone am moo ngi noonu euh, benn bi benn numéro téléphone am la 77 229 19 70 77 229 19 70 képp koo xamante ni li mu fi wax yitteel na rek boo ko woowee di ngeen jokkoo bu baax a baax macha allah ba tey rek ñu daal di jàll ak yow ci laaj bi beneen bi si topp di wàllum nopp maanaam boole ay nit liggéey boobu naka lay demee. loolu Cheikh Abdoulaye Thiam ambassadeur la ci loolu mbirum boole su ma gëmmee sax mën naa ko def mbirum boole ambassadeur lañ ci am na yoon wu ñuy liggéey di ko def ci meewu bay wala meewu nag suñ ko jëlee gas ko ba mu xóot ñu suul ko jëmm jooju noonu ba ilaa yowmal xiyaamati daf lay topp te ci sa waaw lay wéy yoonu boole yàlla may nañu ci bunt yu bëri yoo xam ne nii suñu toogoon tey di ko fi lim amaana fii la ñuy fanaane ba xattaa jigéen ñi nga xam ne bëgguñu am wijji am na téere boo xam ne suñ leen ko joxee ba pencam yàlla kenn du topp ci seen ginnaaw mu neex mu naqari yàlla moo ñu ko may fa waama bi neexmati ko fa diis xéewal yooyu mu may ñu dañ koy sante waaye képp koo xam ne nii am nga soxna mën nañ la ko liggéeyal mu topp la comme xaj nu muy toppee boromam wàllu nopp ambassadeur ndaa ci dem naa ba ne bëggatuma kenn laaj ma ci ndax aajo ji buy toq sama nopp ak keroog bi ko yàlla di faj benn lay doon ndax dama ci am yoon yu leer ci wàllu alxuraan waaye am ci yoon yu leer ci beneen fànn boo xam ne ba ci connaissance noir bi sax buñ ci duggee ci wàllu nopp jëmm jooju noonu daf lay topp ni xaj di toppee boromam macha allah fan yi ñu génn dañu gis euh, coowal suuf loo xamante ni dañ ci tudd ki nga xamante ni moom moo di euh, Serigne bas Abdou Khadre euh, du porte parole xalif général des Mourides ñu buggoon xam rek yow coow loolu nga xamante ni tudd nañ ko ci ban jàngat nga ci am. Serigne Bassirou Abdou Khadre ñu ngi koy nuyu di ko ziare. Touba di bërëb bu ma bëri kóllëre bëri fa soppe bari fa kër yu may faral di dugg di génn. kóllëre googu yàlla moo ma ko may seetuñ ne dama bokk ci beneen këru diine waaye def nañ ma ni seen bopp sëriñ bas Abdou Khadre borom xam-xam borom taar borom lépp wàllu suuf xatta buñ ko ci tuddoon sax mérito na ko ndax doomi soxna la doomi soxna yi suuf ci ñoom jumaa lañ ciy tabax suuf ci ñoom daara lañ ciy def kon nag amaana jox ko keneen mu def ko bërëbu fayukaay wala ñu jox ko keneen mu fay def leneen lu naqar yàlla man su ma amoon ndogal di seddale lépp lu sëriñ Bass Abdou Khadre soxla ci suuf dañ ko koy jox kon nag suuf soosu xatta jox bi bu doon dëgg la sax Sénégal waruñ ci am lu ñuy critiquer ndax ku maamam liggéeyal diine lépp lu nekk damay faral di wax ne mag ñi fi nekk amuñ seen fay jamono yi lislaam jafe ñëpp bëgg dégg alxuraan ñëpp bëgg mokkal alxuraan ñoo fi indi baa siin mimara siin su tooy hay ndigal xaaf lamara miim nuun sadara cekkamtu lépp ñoom ñoo ko fi indi ba jaamu yàlla yëpp jëriñoo diine ba diine jooju yegg si fii kon nag ñooñu ñu ngi leen di xoolee seeni waajur ñu ngi leen di xoolee seeni maam ndax arab daf ne al waladu siru abbi doom mooy mbootu baayam kon nag ñun suñ ko xoolee sëriñ Abdou Khadre élimaan lañ koy gisee élimaanu Touba mi ak kon dëgg-dëgg coow loolu Sénégal waroon ci woon yëngatu waroon ci doon wax loo xam ne nii dañ ciy jëlee loo xam ne mbugalu yàlla la ëllëg waaye nag nañ jël suñu alal yëpp dénk kon nitu yàlla yi ngir ñu ràmm ñu ëllëg kon nag képp ku yàlla def mu ñëw ba fëgg buntu bi ndam rek la fi jëlee ndax suñ maam da wax ne bépp aajo bu narul faju yal na bu mu yegg sama kër gi waaye tamit man maa ngi ñaan bépp aajo bu narta faju yal na bu mu yegg si ci kër gi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu أداء فرض شهري رمضاني